boo ma mayee rek ma rappeler foofu ne aussi journalistes yu bëri def nañ fi cuune mm. ndax dañ yaakaaru ni lundi la ñuy woote mm-hmm. te lundi c'était l'ouverture de la section, de la session extraordinaire justement nga xam ne ni ñaari mbir moo ci am solo bu njëkk bi mooy ndax li mu député yi mat na ngir ñu ubbi ko mm-hmm. yàlla def na bi ñu ñëwee ñu toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñu ubbi bi ñu ubbee président assemblée day jukki yi nekk ci table ñu war ko waxtaanee su paree rek day ndar su ko defee ñu dem commu conférence des présidences pour waxtaanee ko loolu nga wax nag euh, day baax ñu fàttali ni. Mhm. yoon euh, may na président de la république mu saisir assemblée nationale pour session extraordinaire ci lañ nekk mooy bu ñu ubbee octobre ba ak juin dañ koy ndar keppagum pour ñetti weer dem dellu si waaye diggante bi yoon may na assemblée comme président mu mën a sàkku ñu seetal ko yi mu yónnee. Euh, yi muy yi mu waxtaanee nag parce que man yàlla dafa def ma fekkee réunion bu président doon def président de la République Macky Sall doon def ak le groupe euh, parlementaire Benno Bokk Yaakaar. d'accord mu poser question wu article 87 ni dafa bëgg a mettre à l'aise le prochain président de la République may fàttali ni li mu demandé mooy euh, mooy mooy organisation dissolution assemblée nationale ndax ni exécutif amee yoon pour def ko noonu la assemblée aussi amee yoon. bu mën a dissoudre moom itam gouvernement muy motion muy motion de censure mhm. sauf ko la motion de censure kenn encadré wu ko ci temps bi su dee seetlu ngeen bi Amadou Ba ñëwee rek la ko opposition bi dugal président ni su fekkee ni majorité du coïncider souvent ak président bi falu mën na indi blocage mooy ni moom day dem du doon candidat mhm. mais bu ñu ko voté fi loi bi toll ndax loi bi ba léegi dissolution bi c'est encadré fekk matul ñaari at kenn mënul yëkkati verrou bi moom mu ne bu sañoon ñu permettre président bii ñëw mu mën a am disposition waxtaan ak assemblée nationale ba ñu mën a di anticiper élection législative pour ñu mën a bañ blocage parce que kii ñëw en le vingt cinq février mën na jóge ci kaw pouvoir bi comme mën na jógee ci kaw opposition bi su yàlla defee mu jógee ci kaw opposition bi majorité bi fi nekk favorable ko mën nañu def des blocage lu ñëw ñu rejeté loolu la président doon wax mu woo ñu ci. déjà bi mu ñëwee waxtaan groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ay na yéwén ñu ci bëri ànduñu ci ñu ci bëri ñu ko président même si sa fonde on juge de l'opportunité jamono ji mu toll li nga def wëy la Sénégal dégg nañ la bu ñu sañoon ñu teg ko ci suuf bàyyi loolu ba kii ñëw il juge de l'opportunité de le faire wala sa ñu may assemblée. comme sañ-sañam la ñaari atam yooyu ñu bañ ko laal bàyyi te mettre les députés sur leur responsabilité ci la demande a Oumar Youm bi yor groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar mu laajte aussi des groupe de présidents de groupe parlementaire ñu waxtaan ci seen biir dem saisir le ministre bi ko rappelé waat démb bi ñu nekkee en commission bi ñu waxtaanee après le président a fait une note demandé au au ministre de la justice mu retirer ko mais comme pour dire effectivement des députés de la mouvance comme mm-hmm. des députés de l'opposition bari na ci ñoo xam ne ni gisee wuñu ni président gisee woon ba pare wuñu woon aussi pour ànd ci voter li moo tax le président ñu koy saluer au passage mu am la sagesse demande au ministre de la justice de retirer tout bonnement cette modification qui entraînait la possibilité de dissoudre sans délai le l'Assemblée nationale qui à mon humble avis aussi ça c'est c'est ma lecture personnelle. Mm-hmm. pour man pour une démocratie équilibrée il va falloir qu'on ne au président, qui qu'il puisse être, sur des humeurs, sans l'avoir encadré, comme cela se fait en France ou ailleurs, que sur ces humeurs, mu mën a dissoudre à tout moment illico l'Assemblée nationale. Somme tout coow li bëri woon na wax ji bëri na mais finalement le texte a été retiré. Mm -hmm. et que éventuellement les les autres procédures ont poursuivi leur cours.